بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الحمدلة وبعد الحوقلة mbàkke noo ngi jégguluwaat ci yii di xew xam nga lépp dafa ànd ki sew-sew waxal nu ci réew mi yow lan ci yaakaar te sa dëkk bi daa bokkul ak Dakar muy Touba la nga ca wax ci Matlabul Fawzayni dafay maye sans detu daare ni ñi cosaanoo Touba ak ñi texu si na nier madlabul fawzi modi solasi solo rik mbàkke dimbali ñu dana doye de rek waye yërëm nu lom paña tax sunu kay di jeex waye taxul nu bëgg naan ndox mu teex waye bu dee daf nu koy jaral sëriñ muntaka nang nu ko bégalal te wa état bi nga fexé ba ñu soppi te jox touba gëddam ah, soppi mo ci tomber rek moo ci tombe rikk kon na soppi fu soppi jote rek ñoo war a soppi Macky bonul waaye système bi moo baaxul nde Makka sax bàyyi ko lii baaxul te lu xure Makka nag day wokk mbarke ginnaaw ñoom ñaar fu ne yaa fa def barke yow ko tëdd ki Cheikh Ahmadou Bamba ñii bu dul woon ak li ñu naan bi lañ dañ naan la nañ fi jóge kon duñu sañ a bañ waaye nag ku làqu ci yow nuñ koy def ñun Macky <laughs> xamuñu nan lañ koy def yéen a sedd de yéen ñii dëkk réew mi ni ñuy def Touba te ma di xolu réew mi ku ci ñemee dëgg waxal ndax Touba mérité woon na nii ñuy def ba booba te nag lu nu def itam bu ëllëgee fa man yaamal mitqaala daratin xayran yara fa man yaamal mitqaala daratin charran yara loolu wax yàlla la te ñun ñëpp ay dee nag te dinañu dekki ñaar yee ci am waaw tukki ak bañ a tukki de moom ku mu jot ceew ak foo mën a nekk rek mu fekk la fa li ma jaaxal nag ñi ne ay taalube lañu waaw te bëgg a jiite réew mi waaw ñi ne ay taalibe lañ te bañ a jiite réew mi xanaa dañoo bañ tuuba autonome <laughs> ba tax du ñu ci wax waaye jërul weraxle ndax li ma ko wax réew mi moom faw dana koy seetaat nda wax na nag boroom gu wér ci ay baat waxtu lay nekk bu jotee day yomb ñeneen ñu ko bëgg a jiite du yomb boroom a ngi waajal ki mu fi wóolu te bu ñëwee du doon ko dee si móolu kooko Touba lay njëkk a wax ay waxam waaw ndax day ñemee dëgg fare ay rongoñam Touba ngi jooy te ñu bari yëguñu ko système bee koy xas te <laughs> kenn yëgu ko egg nañ ci banaan ko yàgg féppayam waaye léegi borom wax ci <laughs> ba ñëpp xam yàkkamtiwun lu taaxam xam daa yàggul xamna ni ne bani mooy tul yaman yu leenu kulla tawdin shamaqa dakkan liqahar kula janin basmaqa nako ko ñepp mokal rek ba booba moy sunu tul duñ ci yorante ay fetal sunu der yi sunu po yi daal mi ngi ni kit kitira moy sunu tul duñ ci yorante ay fetal khalifa bi mom man de nako president makki itam nako penku jappale khalifa bi wa sow yi jappelé président bi touba d'abord jama waxoon mom lay waxat positivement té lii de man nako koo waat kenn mënta tee la fa borom bëgg am té lu jot rek te wara am faaw mu am nangi ngi yemale wax ji fi ngir yalla ku ci seetatul yàlla seetal ala man al